wax la ci sa dund loo mosul gis wala loo mosul dégg waaye tamit nee na ma dina def noob wàllu noob moom yàlla may na ko ci vingt quatre heures maanaam benn bis képp mu jox la résultat yu leer waaye nee na am na cangatug njara cangatug njara googee nee na ku mu jëflanteeg ba noppi rek di nga ci am lu kawe sa njortu waaye nee na noppeegul de am na ndombo goo xam ne ndombo njare la ñu koy wax ndombo googu nag nee na képp ku ko am dina la aar ba noppi ubbi say xéewal nee na yàlla tamit may na ko ci wàllu ñaan nee na wàllu ñaan dina ci yëngu rawatina wàllu kayit képp koo xamante ni am nga ci ay jafe-jafe dina la ñaanal ba noppi samp la nee na tamit am na cangatug rab goo xam ne bis bu leen yàlla boolee vingt-quatre heures maanaam benn bis képp di nga gis ay coppite ci sa bopp waaye butéel yi ngeen di gis moom la tuddee gaynde gu góor gi bii nag sunu mbokk góor ñi fan la ko jagleel nee na képp ku ko jëfandikoo di nga daw ñëw dolliwaat waaye nee na feebar yi yëpp yàlla may na ko ci muy ndoxum siti hémorroïde jabet ak yeneen feebar yi nga xam ne sonnal nañu askan wi képp ku ko bëgg gis nag ma nga ca cité Aline saw waaye képp ku bëgg a jokkoo moom it numéro yaa ngi noonu ngeen di gis muy 78 475 27 82 ma baamtu ko 78 475 27 82 loolu la ñu mën a jotee Serigne Cheikh Ndiaye Njare nekk Serigne Lasraar bu yàlla baaxal. ñu door revue de presse bi dooree ko stade yéenekaay équipe national bu Sénégal la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa sournal bi nag dafa xëy samp laaj équipe nationale bu Sénégal bii ñu gis ndax mën naa yëngal équipe national bu Brésil ndax xam ngeen ne bërki démb la Sénégal doon jàkkaarloo ak Bénin témboo ak moom 1-1 moo tax journal bi ne ne Sénégal bii ñu gis est-ce que mën nañoo yëngal Brésil suba bu ñu jàkkaarloo mu soxal match amical yéen it maa ngi leen koy laaj ci commentaire yi waaye journal bi yemul ci samp laaj boobu képp dafa gàddu xalimbaam laaj expert expert nag mooy ku xam-xamam màcc ci wàllu football li mu njëkk a wax nag moo di Sénégal nañu def très attention maanaam daf leen di artu nañu xam ne équipe nationale bu Brésil du ñu ñeexu ñebbe équipe bu mag lañu bërki démb bi ñu jàkkaarloo ak Guinée Conakry dóor ko ñeenti bal ci benn waaye nag ñoo ngi xaar suba match bu neex ndax Sénégal li duñu ay como équipe bu mag lañu waaye mi ngi fàttali nag nee na Sénégal de bi mu mujj tase ak équipe bu mag dafa nërmeelu woon jël bu métti ndax Angleterre la ñu mujj jàkkaar lool mu nekk équipe bu mag te ñetti bal ci dara lañu ñu dóoroon loolee ca mondial bala woon nañu ko def ci sunu xel waaye expert bi mi ngi wax ba léegi nee na nag équipe nationale bu Sénégal nañu jëmbat fulla même bu ñu gañewul match boobee ñu bañ a jël score bu bari maanaam ay trois ak i quatre loolee nañu ko bañ te suñu jëmbatee fulla rek mën nañoo am ndam ca match boobee ñanco Sadio Mané tamit mi ngi ci journal bi ñanco ba ñu miinoon xam ko nag ñoo ngi koy gisaat nànk-nànk loolee la journal bi xam le ndax bërki dem bi ñu jàkkaarloo ak bene naam dugalut waaye doxal na def na paas te dribble yi ñu ko xamee woon ñoo ngi koy gisaat nànk-nànk kon nañu ko ñaanal balaa yàgg mu doonaat ñancoo bi ñu bëgg a gis loolee la journal bi xamle journal bi tamit fàttewul Ligue 1 bu Sénégal xam ngeen ne Ligue 1 boobee poosoon nañu li ko waraloon kat ñëpp xam nañu ko jafe-jafe yi amoon ci réew mi dooraat nañu ko nag ñoo ngi toll ci ñaar fukk ak ñaareelu bëccëg Génération Foot nag mooy wéy di jiite li ko waral moo di kat ndam li nga xam ne am na ko ci kaw Guédiawaye Football Club do ko dalal dóor ko ñaari bal ci benn ñaareelu place ba jàmbaar moo fa nekk jàmbaar nag li leen may loolu moo di dañoo dalal duwaan ñetti bal ci dara ñetteelu place ba Casa Sport moo fa nekk Casa Sport it li ko may loolee moo di dafa dalal ta Tëngéej football club ca stade Aline Sitoé Diatta ba ca Casamance dóor ko ñaari bal ci dara bu dee AS Pikine moom démb dañoo daanu ndax waa Jaraaf ñoo leen bett fekki leen gañe leen benn ball ci dara kon jamono ji nag génération foot mooy wéy di jiite ci lig 1 bu Sénégal ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futur Média fekk fa record yéenekaay ñancoo Sadio Mané le journal bi fësal ca xët wu njëkk mu feggoo ak waa Bénin bi ñu doon jàkkaarlool bërki démb match boobee nag ka cay wax moo di Aliou Cissé mi tàggat équipe nationale bi nee na ay ndawam gàcce luñu ko te bég na lool li ñu wane bërki démb ca Cotonou nee na loolee moom bég na ci lool Aliou Cissé moo yëkkati kàddu yooyu ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe Luis Enrique le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa moom nag ancien coach su équipe nationale bu Espagne la ak club bu ñu naan Barcelone jamono jii nag waa Paris ñoo songu ay mbiram Paris li ñu bëgg moo di jëlee ko ca Espagne indi ko mu tàggat seenub club Paris nag yàgg nañoo wër coach waaye ba léegi amaguñu doomu Portugal bii di soo kon Sérgio Conceição nekk ca Porto dañu ko bëgg waaye lii jafe-jafe bi moo di clause bi nga xam ne moo ko bàyyi foofee ca Porto mi ngi toll ci dix-huit millions d'euros te loolee nag du xaalis bu ndaw te Luis Enrique mii kat su fekkee Paris bëgg na ko day dem rek waxtaan ak moom agent libre la maanaam benn contrat lëkkaliwu ko ak benn club loolee nag jamono jii waa Paris ñoo ngi koy càmbar te ñoo ngi baral jéego yi ngir xaatimal ko contrat mu dem ca Ligue ba doxal muy Luis Enrique. ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport waa Angleterre la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Luke Shaw Declan Rice ba ca Harry Kane anglais United nag le journal bi fecc ci xët wu njëkk wa li tax mu wax loolu moo di Luke Shaw xam ngeen ne doomu Angleterre la ma ngay football ca Manchester United moom li mu bëgg moo di doomu Angleterre yii dem fekki ko ca club boobee muy Harry Kane ak Declan Rice Angleterre nag tey jii dañuy football quatrième journée maanaam ñeenteelu bëccëg soxal éliminatoire euro deux mille vingt quatre match boobee dix huit heures cinq lay door match du Nord la ñuy jàkkaar lool waaye latéralu Manchester United bi di Luke Shaw li mu bëgg moo di ñaar ñi fekki ko ci Manchester United. ànd ak ñoom doxal muy Hawriken ak Declan Rice doomu Angleterre bi nee na mi ngi waxtaan ak ñaar ñooñee ngir ñu fekki ko ci Manchester United journal bi nag nee na ko yow agent nga wala mu ne man du ma agent de waaye ñi ñoo bokk équipe national bi dañuy kaf di ree di waxtaan waaye ci noonee ci lay potoxlu wax leen sama dëgg li ma bëgg moo di ñu fekki ma ci Manchester United waaye journal bi nee na ko Declan Rice moom ay mbiram dafa jafe lool ndax West Ham nee nañu duñu ko wanteer xaalis bu bari la ñu ca bëgg te gone gi moom tànn na Arsenal ba noppi kon dafa mel ni ay mbiram moom lajji nga ca maanaam échec nga ca bu dee Harry Kane it club ba mu nekk di Tottenham ñoom jaay ko gën a leen su ñu demee ba di ko jaay it bëgguñu koo jaay club bu nekk biir Angleterre kon dina jafe lool sa mbokk yi fekk si la ca Manchester United loolee la ko journal bi xamal waaye moom lim bëgg moo di ñaari doomu Angleterre yi jógee ci seeni club fekki ko ca Manchester United muy Luke Shaw nekk latéral gos bu mën la muy def ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay équipe national bu Espagne la surnal bi fësal ca wu njëkk wa ay champion la ñu dem moo tax surnal bi champion la leen bindal li ko waral moo de kat démb dañoo dégg daal di Ligue des Nations lañ doon jongante ak réewu Croatie match bi nag tàngoon na jër ndax dem nañu ba prolongation waaye ca tir au but la ñu téqalikoo 4-5 la matc boobee jeexee Espagne nag ñaar ñii ñooy fa mbégte muy si Simon nekk seenub góol ak Carvajal di football ci Real de Madrid ñaar ñooñu ñooy mbégte jamono ji ca Espagne ndax Unai Simon kenn du moom ca kang ya génne na ay penalti waaye Carvajal it moo dugal bit bi tax Espagne am ndam kon ñoom ñaar jamono ji ñooy mbégte foofee ca Espagne Espagne nag gëj naa jël coupe fukki at ak benn jëluñu coupe waaye loolee nag jeex na jël nañu Ligue des Nations démb ci kaw Croatie bu ñoom Luka Modric ki leen di tàggat nag di De La Fuente match boobee bi mu jeexee gaañ ñi dañu koo tàllal micro ne ko waxal mu ne jamono jii de munu ma wax sama xol dafa seddu guy ci fàttali moom nag yàggagul ca équipe nationale ba ba noppi jël coupe loole képp nag sedd na xol. ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay moom it waa Espagne la fësal ca xët wu njëkk wa nekk nañu champion de beneen yoon démb Ligue des Nations la ñu jël ci kaw Croatie waaye mbégte bi nag foofee ca Espagne jamono ji ñaar ñii la muy Unai Simon di góolu ca Athletic Bilbao ak Dani Carvajal mi xam Real de Madrid lay football ndax penalty bi ñu mujj dóor dugal ko moo ko door te Panenka nag la ko def ànd ca ak dal gu mat sëkk nag match ba jeexee juróomi bal ci ñeent jamono ji nag Espagne dégg nañu daal yi waaye match boobee nag bi mu jeexee xarbaxaal wax na nee na bii nag mooy yoon bu njëkk ma am final toog ci bank bi waaye laata match bi di door nag dama jël kàddu wax ak samay farandoo waaye man mii kat bi ma waxee ba noppi sax sama yaram dafa daw loolee motivé ma dugg ci deuxième mi bi nag jëmbat fulla ju mat sëkk Carvajal moo yëkkati kàddu yooyu De la Fuente mi leen di tàggatit mi ngi wax moom nag nee na bi ñu miitaawee dafa dem jàkkaarloo ak boyi yi ne leen dal leen coupe bii ñoo koy jël yóbbu ko ca Espagne loolee bokk na ci li tax nag ñu jël coupe boobee nga xam ne mooy Ligue des Nations Luis Enrique it mi ngi ci journal bi moom nag jege na lool ngir xaatim contrat ca Paris ndax Paris li ñu bëgg moo di mu tàggat seenub club ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport moom it ci final Ligue des Nations bi la ñëw Jordi Alba capitaine Espagne bi ànd na ak Espagne jël Ligue des Nations bi mu nekk juróomi yoon nag ci taarix maanaam ci histoire Espagne di jël coupe loole démb la ko amal waaye journal bi tamit fàttewul mercato bi gone gii ñu naan Vitor Roque lépp yemb na daanaka jooru Barcelone la ndax Atlético Paranense jubo nañu ci lépp ak waa Barcelone trente cinq millions d'euros ak dix millions yoo xam ne bonus la olof di ko wax buuñaa moom la ñuy jox waa Atlético Paranense lépp yemb na balaa yàgg gone gi mën naa xaatim contrat contrat wu juróomi at nag la noppi ngir xaatim ko ca Barcelone waaye journal bi tamit ñëw na ci mbiru gan jamono ji nag Gundogan signature am ca Barcelone defa fulu ndax moom doomu Allemagne bi Barcelone la bëgg a football waaye ba léegi nag Barcelone defagul jéego ndax Barcelone deful benn offre jëmale ko ci moom loole tax na nag xelam tey na ca mbir moomee moom Gundogan waaye journal bi tamit nee na waa Barcelone ñoo ngi ci yoon ngir ñàkk gone gii nga xam ne doomu Portugal la di Ruben Neves waa Barcelone dañu ko bëggoon waaye Al Hilal nekk ci Arabie Saoudite doublé na Barcelone ndax teg na ci table bi cinquante cinq millions d'euros ngir jëlee ko ca Premier League ba yóbbu ko ca Arabie Saoudite mu doxal ñu juge Esport jël Mundo Deportivo moom it ci Ligue des Nations bi la ñëw Espagne nag def na jaloore jël na ko fukki at nag benn jëluñu coupe waaye def nañu loo xam ne ca Europe googee France képp moo ko fi defoon ci ay jamono ndax France kat jël na coupe du monde jël euro jël ligue des nations démb nag Espagne jël nañu ligue des nations kon def nañu li nga xam ne France képp moo ko defoon ca Europe. Mundo tamit dëggal na li sport wax nee nañ waa Barcelone ak Vitor Roque juboo nañu ci lépp Atlético Paranense Barcelone dina ko jox trente cinq millions d'euros ak dix millions yoo xam ne bonus la balaa yàgg nag mën nañu ko officialiser. loolee la journal bi xamle ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Juve rawatina Rabiot la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa caabi millier de terrain wu Juve de du kenn ku dul rabiyo doomu France bi bu jëlee ndogal ngir toog ca Juve Maximiliano Allegri ak ñi mu ànd ak ci liggéey bi dootuñu jënd beneen millier de terrain waaye su fekkee jugee na fa nag dinañu jënd millier de terrain jamono jii nag moo yor caabi millier ba loole la journal bi xamle waaye su fekkee jugee na fa nag waaye Juve li ñu bëgg moo di dem ca Lazio doroom Rome jëli seen millier de terrain bii di million Milinkovic Savic waaye waa Lazio doroom ñoo ngi artu waa Juve li ñu leen xamal moo di sunu millier de terrain bii de ku ko bëgg ñëwal waaye quarante millions d'euros la ñu bëgg ci moom Milankovic Savic nag milieu de terrain bu mën la muy def la ci fàttali Maximiliano Allegri yàgg na koo bëgg waaye su fekkee Rabiot jógee wu fa nag du ko mën a jënd waaye su fa Rabiot jógee dina def lu mu mën ngir ñu indil ko ko moom Maximiliano Allegri Rudi Garcia tamit mi ngi ci journal bi moom nag mooy tàggat Napoli Napoli googee sax tey la ñu fas yéene présenté ko askanug Napoli gépp xamale ko ak supporteru Napoli yi muy Rudi Garcia xamal leen ne leen kii moo fi wuutu Spalletti waaye réewu Italie nag jamono jii ma ngay neex te nooyi waat nañu reetaan naat nañu li ko waral moo di ñoo jël troisième place Ligue des Nations bi démb pays ba lañ doon jàkkaar lool ko jamono ji nag ñi ngi reetaan te nooyi waat nañu loolee la journal bi xam le ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Frattesi le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa doomu itali bi de noppi na ngir dem ca Inter te loolee nag mi ngi koy wane nànk-nànk ndax démb Saliba doomu Italie bi doxal na dugal na jox gaa ñi ñu dugal bit boobee sax mooy bitam bu njëkk ca équipe nationale ba waaye moom noppi na ngir dem jàppale Inzaghi loole le journal bi xam le xamle Milinkovic Savic tamit mi ngi ci journal bi moom nag ma ngay football ca Lazio de Rome waaye Juve dañu ko bëgg doomu Serbie bi nee na noppi na ngir dem ca Juve ndax bëgg na lool club boobee di Juve te noppi na ngir ànd liggéey ak Maximiliano Allegri waaye Allegri